loolu xam nga ku ko xam daf ko njëkkee yaakaar naa bi mu yoree ministère ba léegi euh, recevoir na secteur privé yëpp avant même Covid parce que Covid recevoir na leen ah, waxtaan ak ñoom ci biir Covid bi def na recevoir ñëpp waxtaan ak ñoom ah, euh, tey mu nekk ci terrain bi vraiment daf ma daf ma daf ma neex trop mais ku ko man bettuma ci moom ndax dama ko xam xanaa ko xamul lay betti mais ma pense ci lu bari ndax euh, Serigne Gueye Diop dafa def xamné ni collectivité locale yépp dañ ko war di def si on dit que c'est l'art de de gestion des affaires de la cité parce que mon moo ont am responsabilité ci état bi pour développer te Serigne Gueye Diop woné nako su lay 10 ans on a 10 000 emplois et la population Sandiara motu 10 000 emplois C'est dafa am important deuxième fois le centre logistique bi logistique ñu bari dañ mais ku nekk ci activité économique da nga xamné logistique est naa cher produit bi il n'y a que des produits euh, valeur, même la logistique de cher, mais produits volumineux, de temps en temps, la logistique est peu privé. Et là, je pense que nous devons faciliter le code de femmes solo. Benen le secteur privé euh, étranger bi nga nous ñi investir. Euh dama bëgg mu ñu privés ñun secteur privé national bu ñuy wax di wax étranger le euh, secteur privé étranger bi nga nous pour defar tali wala tabax dem yoonam nga xam ne nii xëy na loolu rek day jël fonds public tabax dem yoonam kooku la ñuy wax mais ki nga xam ne dafa ñëw indi usine am indi industrie am ñëw di fabriquer fii di defar di export kooku ñun dañ koy encourager et je pense que loolu ñun étranger dañ ci war a ñëw parce que bu du woon loolu Chine du développé Dubaï du développé parce que tout s'est développé avec le secteur privé étranger mais dañoo créer des conditions yoo xam ne nii valeur ajoutée bi dana fa des lu bari en tout cas monsieur le ministre merci beaucoup au nom